machine de taille, comme bii café beaucoup de lait. mën nañ si def 200 euh, litres par heure ça dépend parce que échangeur la le système de chauffage bi dafa efficace bii def pizza yi mën nañ def loo xam ne ni mën euh, euh, par heure par heure à la fois aussi def ko entièrement en inox parce que la machine libre, libre, lépp entièrement en inox la war charbon bi day alimenté ay machine machine yi aussi fii lañ ko développé euh, nga xamante dañ koo liggéey ba nga xamante ni autonomie bi gaz yi am euh, ak ak ak charbon kiriñ bi ñu xam mooy matt yi ñu liggéey ko ba mu ëpp loolu kii plaque hamburger la day togg ay sandwich hamburger ak yeneen nga xam ne cuisiniers yi xam nañ ko moom lañ développé fii nii boo xoolee instant bi fa tàng parce que am na combustion ci biir fi may wax yow ni mu ngi am combustible mu ngi tàkk dans les te boo xoolee génewul kenn boo paree fi mën naa la wan machine bi nga xamante ni dañ ko def mu nekk soudure day segg kafe moom dem même système lañ ko liggéeyee mu am ba nga xamante ni mooy tax mu gaaw a tàng aussi amul benn perte fi may wax yow nii dafa tàng ndox bi day tàng gis nga kii nag moom pizzeria la dañ ko def benn échantillon boo xam ne ay pizza lay lakk comme li ngeen gis sànq lakk nañ fi pizza consommé ci ay ay bois euh, charbon de bois gaz électricité pour togo souvent ak ni dëkk bi di askan bi di des besoin de a ni ko euh, charbon exploité ko mu nek matière ba nga xam ne dañ koy def euh, mbalit bi tonnage bi dugg biir Dakar chaque jour tonnage bi génn Touba tonnage bi génn Kaolack ak ni ordure mel imperméable ni mel si dëkk bi ñu trouvé loolu lépp ay solution nga xam te ni lu taxaw la du lu ñuy nekk di dessiner lu taxaw la mais bu ñu woy ñu def liggéeyal bi ñuy liggéey liggéey ci ak ñoom <clears throat> jeunes yi am lu ñu def te lii ay centaine de milliers d'emplois la mën a indi A ba Z kii collecte kii def production kii lakk jaay ki muy fay ñoom yëpp si li ñuy fay mun ñu xëy fii ñu ne tey mbalit amul Sénégal mënul nekk te lu ñëw bu ñu ko produire mu nekk lu indi koom-koom impact bi muy am ak njëg bi non seulement du mooy gën a yomb ya fa nekkoon mais dund gi aussi mooy gën a yomb te ay doomu Sénégal boobaa ñoo koy defar man je suis prêt à ce que ñu développé ko ba pare gën koo ñoŋal def transfert de technologie bi. problème bu am Sénégal te muñ si trouver solution amul amul lépp lu ñuy dund tey bu ñu woowee ñu toog wax ci solution am. vidéo bi thiaogi.com moulen kadon ko may di site e-commerce bu ñëk ci Afrique ñu jagleel ko lépp lu jëm ci walum vente produit élevage ak agrobusiness ngeen mën ko jot 78 130 61 61 wala ci contact email bi di thiaogisn gmail.com